njiitu réew mi Macky Sall ci tukki bi nga xam ne mu ngi koy amal fële ca Arabie Saoudite moom nag profité na ci ngir daal euh, defaale lii di umra bi wala boog aj bu ndaw fële ca euh, Makka moom njiitu réew mi nag ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy délégation ñoom ñëpp amal nañ boobule umra ñu ne sax ñaan nañ ngir jàmm am fii ci réewum Sénégal. gannaaw bi nga xamee ne nag amal nañu modification bu code électoral te ñii di député yi adopté ko woon fële ca assemblée nationale dafa am nag ab groupe député boo xam ne ñoom dañoo jëkk ñu ngi sax toll ci 17 ñu ne ñoom nag ànduñ ci wàññi bi nga xam ne dañ koo war a wàññi li nga xam ne moom mooy liste nationale proportionnelle loolu nag tax bañu ñu li nga xam ne moom mooy conseil constitutionnel ngir won ko daal seen ñàkk ànd ci mbir moomu di set député yooyu nag ñu ngi bokk ci majorité ci opposition wante itam ci non inscrit ministère de l'éducation nationale moom nag siiwal na date yi nga xam ne moom la ñu jàpp ngir amal li nga xam ne moom mooy examen yi bu dee li nga xam ne moom mooy certificat de fin d'études élémentaires ak entrée en sixième dina am le 22 ak le 23 juin 2022 li nga xam ne nag moom mooy baccalauréat technique bi dina tàmbali le 27 juin. deux mille vingt deux bu fekkee nag euh, baccalauréat général bi moom euh, jàpp nañ ko le quatorze juillet ci la war a tàmbali deux mille vingt deux li nga xam ne nag moom mooy brevet de fin d'études moyenne muy euh, BFM moom dina tàmbali le vingt et un juillet vingt deux xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek réewum Guinée foofu nag ka fa nekkoon njiitu réew di Alpha Condé fi mu nekk nii nag ñu ne libre na ña ko xamle ñoom ñooy euh, euh, soldats yi nga xam ne ñoo yor pouvoir bi ñu ne daal fi mu nekk nii kon euh, bàyyi nañ ko nekkatul résidence surveillée kon dinañ ko bàyyi mu dem këram te sax dina mën a recevoir ay nit ay mbokkam ay jegeñaaleem ak sax ñoo xam ne nii kon dafa bokk ak ñoom parti loolu nag ñu ngi ko xamal ci ab communiqué boo xam ne eh, siiwal nañ ko moom Alpha Condé nag lu yàggul dara sax la jóge bitim réew gannaaw bi nga xamee ne kon dafa demoon ngir faju ji ca Mogadiscio di capitalu Somalie foofa nag juróom-ñetti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan gannaaw bi nga xamee ne ay defkatu ñaawteef ñoo fa song ab restaurant euh, boo xamee ne sax jamono jooju ki nga xam ne moom mooy chef de police bi moo fa nekkoon ak ay élus locaux. ñu ne nag ñoom mbir ya laalu leen wante eh, gannaaw juróom ñetti nit yooyu nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan am na nit ñu bëri ñoo xam ne itam am nañ ca ay gaañu gaañu cong yu mel ni nag dañuy faral di ko nemmeeku foofale ca Somalie te lu ci bëri nag ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee Shabab ñoom ñoo koy amal xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleek réewum France mi nga xam ne ñoom nee nañ dinañ jébbal ay ngànnaay ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Ukraine ngir jàppale leen ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ak réewum russi ñu ne ngànnaay yooyu nag ay canon Caesar lay doon wante itam ay missile antichar char Milan ki ko xam ne nag moom mooy njiitu réew ma di président Emmanuel Macron ci ab entretien boo xam ne sax mu ko doon amal ak waa West France. réewum Israël ñoom nag dañoo jël dogal ne lu ko dalee suba ci dimanche bi dinañ tëj li nga xam ne moom mooy point de passage bu Erez ngir daal ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat ak i commercant yu Palestine yu bande bu Gaza duñ fa mën a jaar ñu ne loolu nag ñu ngi ko amal gannaaw bi nga xamee ne daal dafa am ay tir ay roquettes yoo xam ne dañ koo tiire kon jëmale ko foofu ca Israël ñu ko xamle di waa RFI point de passage boobu nag di yoon boobu ñuy wax Erez moom nag moom mooy benn yoon bi nga xam ne nekk na ci diggante bande de Gaza. ak territoire israélien bi lii la ñu indiloon tey ci ay xibaar dafa seen teewlu di leen jox di daje ëllëg jaa ngeen jëf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 imam Mouhamad Sakho mën ci umra ak pèlerinage ndax liggéeyam bu set te sell dina ànd ak yéen ci umra ci biir koor gi du 10 avril au 21 avril 2022 te lépp lu jëm ci seen visa seen hébergement ci ay hôtel 5 étoiles ci biir Makka ak Médine ak seen transport ak ay guddi yu xam te mën a jàngale aj ak umra dinañ leen gunge ci lu jàppandaal ngeen am juróomi fan ca Médine am juróomi fan ca Makkatal Mukaram ci ay paquets yu bari te wuute à partir de 3999 dollars seen xëdd ak seen ndogu ca Makka ak Médine c'est gratuit ki leen defal bile xéewal mooy Al Madina International Travel ànd ak imam Mouhamad Sakho te kat umra ci weeru koor day mel ni nga ànd ak yonent bi di aj Makka gaaw leen gaaw téléphoné 34 7 nine six two oh three six adresse mail almadina international travel arobase gmail point com ou bien le www point almadina travel point net dem Makka ci loxo yu wóor ak teñaan ñaan yàlla nangu su ngeen ko bëggee contacter leen agence almadina international trabal nekk fii ci Amérique ñoo mën ci umra ak pèlerinage لك والملك لا